auzu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen jaar ginnaaw loolu ñu ngi ñaanal bu baax euh, Serigne Mountakha Mbacké euh, xalifa général des mourides euh, suñu borom yàggal ko suñu kanam di ñaanal bu baax Cheikh Ibrahim borom Daaru Muxti Serigne Bassirou Anta Niang suñu borom bàyyi ko suñu kanam di ñaanal baax Cheikh Ahmadou Karam Mbacké nooré nii mbokk yi ñu suivre à travers Kourel Kara TV yi partout dans le monde ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen saar tey di àllarba fukki fan ak benn euh, ci weeru août tey ñu ngi fii ci Daarul Muxti ci bisub bi nga xam ni euh, ginnaaw bi ci euh, ñëpp amee ndigalul Serigne Mountakha Mbacké muy bisub xasida yi niñ ko nemmee ko Touba itam nemmi ko ci bërëb yëpp moom lañ ko nemmi ko itam fii nga xam ni moo di Daarul Muxti ginnaaw bi nga xamee ni Serigne Bassirou Anta am na ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké ngir ñu màggale ko fii nga xam ni moo di Daarul Muxti ngeen gis bin xëy itam niñ koy amale fépp noonu la ko waa Daaru Muxti amale ñëw ñu ñëpp dajee ci penc mi ñëw ngir dundal bis bi jàngal xuraan ak euh, durus xasida ngeen koy euh, gis noonu baas bi nga xam ne itam mooy suñu ginnaaw fi la lépp di xewee suba ba léegi itam wax dëgg yàlla fi la mbokk taalibe yi dajee di durus di jàng alxuraan fas ko yendoo itam ba euh, ba 17 heures tey niñ ko xamee itam waa diwaanu Bamba fépp itam am ci taxaway bu am solo bo xamne am nañ ko ci bis bi ndax ki nga xamne moy Cheikh Ahmadou Kara nouray ni daf leen xamal leen dama bëgg taxaway bi nga xamni ni isbu ah, Hizbut dañ ko am fi nga xamne modi di Touba taxawaay boobu noonu ñu am ko fii nga xam ne moo di Daaru Muxti moo tax itam loolu bi mu amee ginnaaw bi Serigne Bassirou Anta Niang ah, jotee ndigal Serigne taxa ngir ñu taxawal bis bi fii itam waa diwaanu Sulkul Jawahiri am ci taxawaay bu am solo baas bi ngeen di gis ah, suñu ginnaaw nga xam ne waaye diwaanu Sulkul Jawahiri ñoo ko am ci ah, ñoo ko fi ndi ci ndigalu Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni kon daal bis baa ngi noonu mbokki taalibe yi incha allahu rabbi lépp loo xam ne dina xew fii dana leen ko fas yéene diktal rabbi jërë ngeen jëf ba léegi itam ñi ngi taxaw ak euh, kenn ci ñi nga xam ne ñooy membre organisation yi bokk ci waa Islaahu Daarayni sëriñ Mahmadan Diop ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la ñu bàyyi la nga nuroog mbokk yi nga xam ne ñooy euh, internet u kuréel Kara TV mu mel ne itam ginnaaw bi ngeen jotee ndigal ci euh, sëriñ Bassirou Anta Niang jaar ci seen jëwriñ itam sëriñ Abdou Samad mu mel ni itam bis bi gis nañ taxawaay bi nga xam ne am ngeen yéen kàddu ngay yëkkati jëmale ko ci ci bis bi jërëjëf sëñ Cheikh ñi nga xam ñi ngi seetaan ci Kara TV ñu ngi leen di jaajëfal baax ni ko sëriñ Cheikh waxee rek biñu jotté ndigal ci Serigne Bassirou Anta ak imam Khalifa Cheikh Ibrahim borom Dar Mohti mu boole ñu ak Serigne Abdou Samad mum Serigne Moura Bal mi xamni lepp lu jëm ci diine ji fi Dar Mohti mom lako Serigne bi tak ci loxam euh, Serigne bi mom Serigne Abdou Samad ndax diine ku ko diine ñor taxna taxway bu am solo la ci taxaw ndax biñu Serigne bi joxee ndig rek dafa daldi di dafa daldi di njëkk li def rek manam faxee dajal li xam moy presse bi lenn ci ay organe presse mo xam ci site internet wala euh, euh, wala radio yi dal len dajal ci kër borom daru ngir ndigalu sëñ Bass loolu ñu man koo euh, ñu man ko ñu man koo jottali ba tax na yaakaar ni mu war a jaale jaale leen sëñ bi it moom sëñ sàmmat it di mu njëkk a defee dafa daal njëkk a làmb ci gafakaam ci poosam daal ci njëkk a jëm ànd ko ak noonu di sant it bu baax sëñ Cheikh mboolem ni ko euh, sëriñ bi digle woon rek lenn ci kilifa yi nga xam ne ànd nañ ko ak noonu lu ci ëpp ci njabootu borom daaru Muxti bi mën nañ cee jiital sëñ Maam Thierno moom sëriñ Aydara ak ki ci yu mel ni Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khoudous mi nga xam ne moo yor kaddu njabootu borom Darou Mouhty ku ci mel ni Cheikh Modou Kara Noreyni jëfam moom du lu nuy wax mën nañ ko wax waaye yaakaar naan soo gëmmoon sax boo dikkee jumaa ji di nga daal ci jëfam ndax tànt bu mag bu ñu jàkkaarlool kenn ku ne xam ne suñ ko doon luyee ay millions yu bari lañ ko luyee mu mel ni itam euh, comme itam diwaanu Bamba fépp euh, ginnaaw euh, seen jëwri muy Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni mu leen ko waxee woon muy ne li ma bëgg taxawaay bi xam ne waa Hizbut Tarqiyyah dañu ko am ci Touba ñu am ko ci Darou Mouhty mu mel ne itam waa diwaan Bamba fépp loolu am nañu taxawaay bu am solo xam nga Hizbut Tarqiyyah taxawaay bi mu taxawaay ci kanamu xalifa bi di Serigne Mountakha keroog bi Cheikh Ibrahima bi sëñ Bass nekkee rek Cheikh Ibrahima Faty bari bi ñu demee wax nañu ko sëñ Bass dafa wax ni man su ma juumee rek mbooloo juum ndax dafa wax ni bi ma nekkee borom daaru damaa wax ni lépp lu may def dama koy dama koy diisoo daal di tudd sëñ Mourou Kara wax li mu ko jox tudd sëñ Cheikh Faye tudd sëñ Bass ba sëñ maam Thierno moom sëriñ sëriñ Cheikh Awa Balla nga xam sëriñ Moussa Absa moo jëwriñ ji waaye sëriñ Maam Thioro mooy lépp ba sëriñ Modou Kara Sylla tax na bi sëñ bi joxe ndigal ndax gis bu taraxee saa bu leen sëñ Mountakha joxee ndigal la ñuy njëkk a def ci ndigal li mooy communication bi jàll baas yi ak lépp luy bernde ci gis nañ sëñ Kara yi noonu la taxaw ndax moo indi baas man mën na ni mboolem lu ñu joxe rek defar na bis kon taxawaay boobu waaye kenn demul des muy waa Silur bu Daaru Moxti jëwriñ sëñ Maam Thierno Jaam moom taxaw na taxawaay bu am solo sëñ bi yabal équipe gis nga presse bi dañoo déplacé waat Dakar muy Kara TV yaa gis ñoom it ñëw nañ ci bis bi ànd ko ak noonu waaw sëñ Abdou Samad ak sëriñ euh, Abdourahmane ñi ngi ni ànd ak noonu bis bi di sant ba baax Pape Moussa mi xam ne moom sëñ Moura Ball moom sëriñ Soubérou moom moo nekk mooy mooy jëwriñ commission culturelle bu islaahu daara ni waaye teewul it ñoom dañoo waajoon ngir dem Touba Pape Moussa doon corné bi mu dikkee it ñu xam ne mbir mi du mbirum islaahu daara mbirum njabootu borom daaru moti la mu daal di fab lépp ci taw dalawaat ko Pape Moussa mu corné kuréel gii nin ko nin ko nin ko nin ko programme mooy juróom-ñaari kuréel moo ñoo fi war a jàng tey sëñ Abdou Samad jox nu ndigal ni maggi bayt yi nan tëj waaye nag nan tijji noonu lañ ko defee juróom-ñaari kuréel kenn ku ne dox nañ la 40 minutes nu tànn juróomi jàngkat yoo xam ne ay raskan la kenn ku ne jox nañ la 25 minutes bàyyi nañ benn waxtu boo xam ne moom la ñuy raserway ci leen war am ci bis waxtu woowu ci la ñuy waaj a julli ci la ñuy def mbiri njaayeen yi kon yaakaar naa programme bi noonu lañ ko programme di sant it mboolem site internet yi xam ni jot nañ fee teew rajo na rajo Darou Mouhty FM 104 point 4 ci njiitul directeur sëñ Moustapha Ndiaye ci taxawaay bu am solo bi sëñ Cheikh